jigéen ñi ak yàlla sunu nettali tey jii mooy jigéen ñi dimbali yéesu nettali bi mu ngi cosaanoo ci Macë saar ñaar fukk aaya ñaar fukk ba ñaar fukk juróom benn Mark saar benn aaya fanweer ba fanweer ak benn saar fukk ak juróom aaya ñeen fukk ba ñeen fukk ak benn luuk saar juróom ñett aaya benn ba ñett saar ñaar fukk ak ñett aaya ñaar fukk ak juróom ñaar saar fukk aaya fanweer ak juróom ñett bi yeesu nekkee ci kaw suuf di liggéey daana tukki jóge këram ci galile dem yude walla yerusalem daan na tukki dëkkoo dëkk di yëgle xabaar bu baax bu nguuru yàlla amoon na fukki góor ak ñaar ñu leen daan wooye ndaw yi yu daan ànd ak moom amoon na itam ay jigéen yu daan topp yeesu doonte daawuñu ànd ak moom saa su nekk gëmoon nañu ne mooy ki jóge ci yàlla gëmoon nañu ne yonent bu mag la ndaxte gisoon nañu dooleen bi daan faj fajoon na sax ñu bare ci ñoom ak ñu mu dàqe ay rab ci ñoom amoon na ci maryaama magdala ci moom la yeesu dàqe juróom ñaari rab noonu doon na topp yeesu amoon na yeneen jigéen yuy topp yeesu maryaama yaayu sak ak yusufa yaayu ñaari doomi sebede yi moom moo ñëwoon sukk ci kanamu yéesu ñaan ko mu may ay doomam ñu toog ci ndeyjooram ak ci càmmooñam ca nguuru yàlla ga amoon na yeneen jigéen yu doon topp yeesu ni saan di jabaru kuusa mi yoroon kër buur erod ca yerusalem amoon na salome susaan ak ñeneen ak ñeneen daanañu joxe ci seen alal ngir dimbali yéesu ak i taalibeem ci seen liggéey bu ñu daan tukki dëkk ak dëkk amoon na ñeneen niki maryaama ak màrt ñi wowoon yéesu seen kër ngir noppalu fa te lekk maryaama ak màrt ñu ngi dëkkoon ci ab dëkk bu ndaw ci wetu yerusalem amoon nañu càmmiñ lu góor boo xam ne xaritu yeesu la woon màrt moo njëkk a wooye yeesu borom bi bi mu fa ñëwee ngir dekkil seen càmmiñ ca fanu njëkk ya yeesu tàmbalee liggéeyam keroog bi mu demee kër simon pierre kenn ci ndaw yi yaay jabaru pierre dafa fekkoon mu feebar yaram wi tàng bi ko yeesu yégee mu téye ko ci loxo dimbali ko mu jóg noonu tàngaayu yaram wàcc noonu muy toppatoo yeesu ak ñeneen ña amoon na yeneen jigéen yu bare yu daan ñëw di déglu yéesu bu daan wax ca tund wa walla ca tefes ga ay jigéen teeru nañu ko ne ab buur bi mu waree mbaam ma doon dugg yerusalem bi muy jeexal liggéeyam bés bi ñu doon génne yéesu yerusalem ngir daaj ko ci bant jigéen ñu bare toppoon nañu ci di jooy tey naqarlu deewu nit ku amoon yitte ci ñoom mu ne leen yéen jigéeni Yerusalem bu leen ma jooy jooy seen bopp ak seeni doom yi su xamoon ne metit bi naroon dal waa Yerusalem ndax seen ngëmbadi jigéen ña ñu ngi sore woon bant bi di xool fi ñu ko doon daaje toppoon nañu ko ak ngëm gu dëgër jamono yi muy liggéey ci kaw suuf fii la nettali bi yem nanu jàng aaya bii mu tontu ko ne waa borom bi gëm naa ne yaay almasi bi di doomu yàlla ji war a ñëw àddina yowaana saar fukk ak benn aaya ñaar fukk ak juróom ñaar